Euh, parce que hier j'ai longuement écouté euh, Mbaye Ndiaye et c'est une grosse erreur de ne pas les écouter parce que souvent da ngay dégg nit Moi tout la man à ma Non, bon faut pas écouter les sorties de Fatou Tampi les sorties de Matifal ou bien les sorties de Californe etc parce que t'apprends rien du tout mais il est important que ñu déglu bu à à APR surtout les cadres de la paire parce qu'ils il lâche beaucoup d'informations et euh, comme j'ai l'habitude de le dire euh, Macky Sall acte bu mu à rek donc hier Mbaye Ndiaye il se présente à la TFM dans un public reportage, parce que moi je j'appelle pas ça une interview. Parce qu'une interview, bon voilà, da ngay pousser dans notre dernier retranchement pour que a am information donc il était tout simplement euh, pour une communication gouvernementale Pour xam ne bëggoon na Sénégalais moi interpellé donc hier il Ndiaye on l'a entendu dire Aper Yakar après je ma nag ngeen ci xel bu mais hier il n'a pas parlé de Benno Bokk il a dit Aper Yakar L'autre ci mën a ci biir wax jooju moy que bon certainement bir Benno Bokk yakar xeyna amna parti yo xamne nangouñu accompagner Macky ci suicide collectif bi nga xamne mom la jëm en 2024 donc ñom ils sont déjà con ils commencent déjà à anticiper 2024 ak beneen euh, bannière bu bees moy la bannière APR yakar parce que ce n'était pas pour rien que Mbaye il a insisté sur APR yakar xoma nak bay ngeen ci xel et j'ai pas compris aussi euh, pourquoi ça a pas fait tilter le journaliste ne quoi, mais euh, Mbaye Ndiaye li tax nga né APR yakar alors que depuis 2012 Benno Bokk yakar ngeen ñi mais comme vous dites tout le temps diko woy fep que bon yéen élection yëpp da nga ñi gagné donc pourquoi on change une équipe qui gagne et ñëw en 2024 bien euh, à l'horizon 2024 ngeen wax APR Yakar. donc ça c'était la première observation euh, la deuxième observation il y a un chiffre qui est sorti faut ngeen ñu vous xel ci chiffres yi Macky Sall c'est un scientifique c'est un danañ bàyyi xel ci chiffres yi bu baax baax parce que lañ jàngal lu bëri man bima je APR di jaay ay carte de membre parce que quand un parti politique, bon, légalement constitué, dégage une carte de membre c'est pour financer parti parti le contraire parti politique une association des cartes de membres et nous sen carte de membre à partir de la carte de financer parti politique mais là la paire vend des cartes à 100 francs la limite la paire vend à perte parce que quand carte donc le but, c'est pas de renflouer les caisses de la paire, mais le but, c'est que 1 500 000 bobo après dañ communiquer et pourquoi ils ont sorti exactement 1 500 000 cartes On en 2019 Bon chiffre dañu plus de 2 millions de parents. allez regarder les chiffres des dernières élections présidentielles de 2019 Macky Sall 58 Demain, nombre de voix plus de 2 millions de voix xam nga sax un président qui a bon deuxième mandat d'habitude au Sénégal deuxième mandat y président donc 58 est bon Je na suis choqué mais là ñu a 1 500 000 cartes à perte Regardez le résultat des élections législatives est passé à perte 1 517 000 et quelques voix exactement moko jox 46 pour dans leur tête ils se disent ben écoute suñu 2024 admettons que Macky Sall force mu ñeu 2024 ak percée bi nga opposition une percée si on revient pour dire aux Sénégalais ben 57 ou 58 ou 59 pour cent ben écoute dañ stratégie stratégie maintenant ñun luñu amone les TV, les 1 million 500 et quelques mille voix nombre de cartes exactes pour déjà acquis même si on 46 mis y dina am ay parti yu petit euh, présidentiel. après mën nañu waxtaan ak ñoom Qui 5 à mon la qui fii 6 à mon la comme ça nous ko dajalee le euh, résultat yi nga xam au minimum peut-être 51 L'essentiel, c'est l' et la communauté internationale day accepter l'or. parce que la euh, communication en fait ce n'est pas pour nous C'est pour la communauté internationale Nous avons accepté la logique que nga avons ne Moi, Macky Sall moom je pars avec Antoine John comme ministre de l'Intérieur pour mener nous la 46 parce que les les Sénégalais ont 46 pour parce que les ah législative yi comme voix donc c'est logique logique mu le nombre de voix parce que le nombre de cartes c'est lay jaay am ah. et au pire deuxième tour ben, deuxième tour da ngay nous avons fi ñoo xam ne bon ngi parti politique yi fii naan ay opposant la ñu 5 ou 6 5 ou 6 c'est le Macky Sall di soxla ñu boole ak les 46 mu jox leen 51 l'essentiel cent l' après c'est n'est pas grave opposition bi day toog waaw percé bu def Macky Sall ñu ko 51 mais pendant ce temps le gars il est redevenu président loolu qui intéressé ñu xool aussi Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye qui était complètement aphone bu ñu ko mujj dégg Mbaye Ndiaye ñu ngi ko dégg ci problème assemblée nationale bu muy dit que le président kan la tànn kenn Mbaye Ndiaye

je supposons et lui me suppose, nii dama koy logique parce que beaucoup m'ont nii comme si j'ai des pas d'information je suppose et lui may suppose aussi xel mën na pas taj Mbaye Ndiaye dañu jàpp doom ji def trafic de faux billets ñaari fan lañ ci teg Mbaye Ndiaye génn troisième mandat troisième mandat troisième mandat troisième mandat Moi, on lui a forcé la main les beaucoup daanelee bëgguma mu gudd dafa am beneen parce que beaucoup de gens se posent la question à savoir mais waxu ADN lan moo fi indi lu fi indi waxu ADN tu as un certificat médical qui se dit que amul rapport tu as eu des témoins ñu nekkoon fofu ne la dara xewu fa Borom kër gi le gynécologue ñom ñop ne la dara xewul li gën attester attesté dara xewul moy le certificat médical en plus tu as même convoqué le gynécologue bu ne fii dara amul conjonction amul dara donc pourquoi ADN man li ma si jàngat que le juge Maham Diallo dafa bëggoon yóbbu affaire bi procès en faisant quoi je n'ai rien sur sur ma table au ma vidéo au mon certificat médical au ma dara mais par contre nag man foog ma am lu ma sénégalais yi en sachant que le bonhomme bi nga xam ne moom convoqué bés bu ko nee defee test ADN da koy bañ parce que test ADN je sais pas depuis le début vous entendez Bassirou Diomaye euh, comment il s'appelle waa APR yi euh, waa Pastef ñoom ñëpp dañ naan defuñu test ADN parce que ñoom xamuñu fan lañ leen bëgg a jëmee donc il fallait que le juge ne Ousmane Sonko défal test ADN Ousmane Sonko bañ mu meuna a génn ne yóbbu ko procès parce que aw lu leer parce que su nangoon def test ADN bi dina leer mais vu que aw lu leer nangou def test ADN donc je ramène ça à un procès moi li nga xamné c'était le projet depuis le début mooy yobou ko procès teg fa aji sar mu yobou waxu kacaw kacaw yoy malheureusement voilà malheureusement on y arrive xamuñu won Ousmane Sonko il a un document bo xamné ça va il dafa dafa classé le deal hein. bi le rapport interne de la gendarmerie ñoom man bir na ma ne suñu xamoon Ousmane Sonko mi ngi document boobu dinañu ut benen buntu mais duñu ut buntu ADN parce que buntu ADN sérieusement man sama njàngat honnêtement moi lu ko fa indi parce que beaucoup de Sénégalais se posent cette question je me dis que parce que bon dañu xol dañu xol logique rek ah gars dañu xol logique rek ah. dañu xol logique quelques jours avant Maham Diallo dem Inde dem def ay bagages jour convocation bi mu sotti ay saafara tak loxo bi mais ce que da ngay àtte dëgg yow lii la dëgg wax mais donc loolu yàlla rek xam nga ne soxlawul sangu tey su fekkee ne dëgg rek ngay àtte soxlawul ngay protéger donc tu te protèges pourquoi pourquoi maa Diallo a voulu se protéger il se protège de quoi parce que quand tu te protèges de quelque chose parce que dafa am loo fas def donc le but de l'ADN c'était ça c'est logique Moi, Aden, bañ le juge qu'est-ce qu'il dit bah, écoute vu que nangul def nous man mënuma éclaircir dossier bi a dans le tribunal Malheureusement, le gars, il est venu avec un document Et là, intervient l'arrestation de Papa Lénian. Parce que ni problème, Macky Sall, il est colérique. pourquoi Tous ses proches te le disent. Il est hyper colérique. Moi, cette fois-ci, ce que Papa Alignan et Ousmane Sonko, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que Papa Ny il problème depuis longtemps. voilà, mon, voilà, mon du coup, Mais là, nous précipité, taille, arrestation. Non, de d'être aussi. Hein. de d'être moi c'est le rapport d'enquête interne de la gendarmerie m'ont précipité loolu moi tax ñu japp ko sax un dimanche moi looy wan ce c'est un ordre bo xamné ci kaw kaw lu jógee motax nga précipité wu dem japp waa parce que le gars il est colérique il a dû ne pas pu euh, supporter li nga xamné mo am parce que ñom ils avaient prévu déjà leur coup moi juge xam Diallo bon président franchement bëgg na leen jappalé man man dama am njaboot am fi famille bon qu'est-ce que je peux faire bon ma xam yàlla baax na de la defal li nga bëgg bon voilà c'est compliqué parce que juge bi jaar na fi li am na fi li am na fi bon écoute qu'est-ce qu'on fait

ne ko test mu bay juge bi meuna am lo xamne ñom meun nañ ko jox opinion bi opinion bi war ko mën accepter moy vu que il a refusé de faire un test ADN donc yobuna ko procès té loolu la mbir bi yobu procès Adji Sarr taxaw fa di waxu piccam yoyu xom taay deggo sax xom numuy waxe di làkk xom ma tubaab lay làkk kenn xamul nu donc lool rek laa bëggoon tay ñëw waxtaan ak yeen gaay di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax asalaamaaleykum